صحبت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صحبت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صحبت لي رب البرية البدن أزاد خلق من خلوني بددا ak ziar bu ma tibbee ci sama biir xol jëmee ko ci sa jëmm ju tedd ji nuyoo yooyu ak ziar yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy ngërëm loo xam ni ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet bi nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi mu ñëw nag tey ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ak délégation bi ñu ñëw ndokkale si la ci bés bu màgg bi di bésu xadimul rasul di bésu lislaam di bésu yoon wi di bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat santati la bu baax na la jërëjëfati ndax sama xol sedd na lool sama xelit yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu maam borom Touba bii ñu dégmal ak waajal kàddu woowu lu rëy la ci man sëriñ bi maa ngi la koy sante bu baax ndax xam naa yaa ma sa bopp ci say loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak sëñ Touba kon jërëjëfati ci lépp ba tax na faw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sa wet ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal Sëñ Tuuba ci dëkk bu tedd bii ak ci yoon wi yëpp taxaw sa wet ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu ci gën a ràññee te xam ne bokk na ci li gën a nekk sa xol mooy daara ju mag ji di daara ju kawe ji di université Cheikhul Khadim ñu fas yéene it euh, nekk sawet ci boor boobu ndax liggéey boobu bu sottee dana bëral njëriñ lool lislaam bi bëral njëriñ Sénégal ak Afrique yëpp kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi dana nekk sa wet si lépp loo xam ne ginnaaw ba nga sumba liggéey bi def ci lu rëy li ñu ci def lépp loo xam ne si sunu wet la danañ ko mottali bu ci yàlla andee man lay santaat sëriñ bi ndax bés yi ñu génn ci waxtaan bi ak ba mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a jóg wane yoon yëkkati alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wane yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne li ñuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe jëfe jëfee ñu am màggal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi ni mu doxee waaye am nañu yaakaar ak yàqin ne lépp dana jàll ci jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ne ñëpp jëfee ndigal loolee ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rekk sumb yi nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bii bokk na si lii di ay yoon rawatina benn bi jëm jóge Mbàkke jëm Kayel te Touba Mboul loolu yàlla def na lépp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tàmbali liggéey boobu ci wàllu wér-gu-yaram it xam nga ne hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom-benn milliard ak juróom-ñaar téeméeri million ci def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën a bokk tey ci hôpitaux yi gën ci biir Sénégal bu mag bi ñuy defaram incha allah benn weer mois de mars ko boo joxee tur bi si war a def danañ dana jël bu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal mooy hôpital yu ëpp mandarga kan kenn dootu war a mën jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliards ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci hôpital boobule. ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay yi ñu daan jël ci màggal jëlaat nañ ko defaraat yenn ci ay château d'eau mu nu ndamaatu defaraat yenn ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi lu muy màggee mooy laaj at mu ne faw ñu yokk lañu defoon ba tax na loolu it gouvernement bi même si am nañu yàqin liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci wàllu étude te ñu ñëwoon wan la suñu yéene bu étude boobu paree danañ mën a ñu waxtaan yow ci wàllu ndox mi nan lañ ci amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu bu yàgg waaye surtout bu joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi la ci wàllu courant tam yaakaar naa ni làmp yi gis ngeen ko ci dëkk bi waaye ci Sénégal yëpp la loolu it dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee euh, dama faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj leneen rek ñu fàttali ne taxawaay bi fi ne woon démb tey la gën a dëgër tey la gën a tar si sa te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat <laughs> suñu taalibe si sa yeesalaat it taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp ginnaaw bi ma la sant bu baax a baax sant njabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi fi nekk yëpp eh, di borom ñu sama xarit sëñ Abdou Fatah maa ngi koy tooñ léegi bi muy dugg ak eh, maanaam sëñ Isaaxa si rek ak nag di nuyu sëriñ Basiru Abdul Xaadir bi nga xam ne yaa ngi boole muy yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu mu ciy dox ak mboolam jabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi teew fii ñun ñëpp ci suñu tur maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziara réew mi ak ndokkalu Sénégal ci bés bu mag bi ñu dégmal di la sakku ñaan ñaanu réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm suñu borom it mottali ñu nawet bi nga xam ne am nañ ci yaakaar. ba ñëpp muurloo ko ñoo xam ne xéewal yi dana yaatu ci biir Sénégal ba ñu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo ci ñaanee ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu moo doon kàddu ci lu gàtt rek yu ma bëggoon def di joxaat nuyoo nga xam ne mu soxna Marème mu ngi wax si suñu doom to jottali sama nuyoo ah, waaw Omar waaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar maa ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ba mboolem sumbul ak naaj wu rëy am ci lislaam am ko ci yoon wi suñu boobu may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak i ngërëm jëmme ko ci ganam gii di président de la république Macky Sall président Serigne bi nee ñu ngi lay baax a baax di la sant di la gërëm di nuyu itam sa soxna di soxna Mariam Faye nga xam ne ñoom itam sëriñ bi xam ne yitteem ak taxawaayam ci ñoom aku jàppam ci lu ba tey xam naa dinaa ci dellu ci kàddu yu ma yóbbante ci yow di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ la tuddee rek mu mën a yóbbaale njëriñ si ñëpp ndax bëgguma lim di fàtte waaye ñëpp itam di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg ak sëriñ bi kenn desut kenn ku ci ne la nga ak sëriñ bi rafet na bu baax a baax kon nag sëriñ bi wax na ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba ci waajtaayu bis bu tedd bi ñu jub si ngir nag sàmmoon teg fi àdduna toll ak fi waxtu wi ñoo tax ku ne xam na ne dundu wu nag daa demee ndax mënoo tere dara ba noppoo biir ko di ko wootewaat te xam na ne xam na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakkam lañ ñu ci des ñëpp di ay doomam ñu ci tam mooy Cheikh Sëriñ Tuubaa yi ni mu demee tax na moom bu fi toogee rek teewaale na fi njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ñoom ñëpp maase ci xam ne fi fu sëriñ bi nekk wala ko agsi ci moom bu ne rek agsi nga ci ñoom ñëpp donte kenn ku ci ne yónnee nga fa sa ndaw te sëriñ bi itam xame na ko noonu rafetlu na ko bu baax baax kon ñun ci nekk mënta tudd rek moo la yóbbaale ñu ci des ñëpp mooy nga xam ne mu ngi fi bi ak rakkam sëriñ Abdou Fatah Mbakke Cheikh Mamadou Fadil mu yóbbaale mboolem mën a yóbbaale ñëpp bis bii nag di bisu xam ne moom moo la yëkkati ngir ànd ko ak sëriñ bi. muy bis boo xam ne dafa rëy ci moom ndax lépp lu am rek ci lañ ko am ndax bis bi bu Serigne Touba demutoon ci géej gi li ko waxee rek kon ñëpp dayoon tàbbi ci kéefar lislaam far kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñu bopp kon bis bii lépp lu am ci lañ ko amee moo tax nag sëriñ bi fonk ko lool xam ne Serigne Touba moo ko santaane woon te daa ko jëfal bu fam lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ci ñëpp sant la yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam ba ca nattu ya na ko tàmbalee yéene waxtaan wax ne katabtu yawma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaaqi balwa alhamdulillahi alladi qad raada liyan ida wasaaqa li ahraada fustu ladaa galwa wa inda bafali bi moo ji ulleeru kulle ma afali mooy ñu màggal mel tey waxaat lay de nawaytu shukrahu lada daari salaam wa inda tuuba bi jismi wa wax na ko fu bëree bëri kon loolu mooy bis bi nga xam ne ci la suñu jeexal na taw yëpp mboolem lu mu amee ci la ko amee kon nag Sëriñ Tuuba ci jikko jikko suñu borom defal te mu wér ca mooy la ko kenn ci Euh, benn commandant de cercle bu nekkoon Diourbel te ñu bari xam ko mu tuddoon Antoine euh, Leselve euh, ci 1918 benn rapport bu am solo bu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju am solo wax ne la de Cheikh Ahmad Bamba xutwatun fitriya nee na Serigne Touba suñu borom defal na ko xuwa fitriya mais force boo xam ne kenn xamul fu mu jógee nee na itam topp gi ko mu ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci mu xel nee na jural na leen itam lépp lu ñu leen digal ñu def ko te duñ ko te te te duñ ci xalaat mu ne si Ahmad Bamba mu nekk maa ngi seere ci moom ne eh, ñu ñu jëkkoon di anbiya ak mursalin li ñu màgg màgg ay li mu siiw siiw bu ñu dellu si waatoon dañuy ñeex Sëriñ Tuubaa ci jikko yu ko yàlla defal nee na bokkoon na ci jikk yi rek mooy yéene ñëpp jàmm xàllewul ab soppi ak moom loolu waral Sëriñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ñu jéggal naa sama noonu yëpp waaw fawtu anil a'daa'i turan li ci ñun nafaahum li xayri suñu borom itam ne ko bu ma tukkee boo njëb si xéewal yoo ma fa jële yëpp yàlla nga ko jële sotti ko ci mboolem sama askan muy Sénégal gépp nga xam ne yemaloo ko ci ñu ko yaakaar waaye képp ku nekk Sénégal rek Serigne Touba fàggoo wàllu dara ci biir ñàng mu wax ne lii aw si de des yi di wan faay bi yàlla war a yaa mu wax ne yéen am na faay kon loolu mooy bis bi kon Serigne bi nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa digal moom ndax loolu itam li ko waral euh, su bo euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xaddis ba ne al abdu lam yaskur nii maa lam yaskur man ajraytu nicmata ala yadihi jaam bi sant ma li fi sant ko jaaware jaam jaaware jaarale xéewal gi ci moom kon nag nee na suñu borom ñi dogal moo leen boole jëkk ci jataay bi moo leen tam ci jataay bi mu gis le am ci yaakaar am ci yow ak cofeel gis sa yar ak say teggin mm-hmm. ak fonk gi nga ko fonk te bam la xamee ba liggéey tamit gisu tam lu mas a soppi ko ci loola ba yàlla def nag mu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa bu mu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa bi itam nee na sa yaakaar dolli ko ci moom nee na kon nag mu ngi lay sant di la gërëm di ko seere taalib ko waxee woon ci bi muy woote màggal gi wax ma ci lan ngeen lan ngeen itam lu ma lu ma ko sant rek li ma denc sama xol mu ko ëpp. ma jàmm ma dara ci fitne du agsi ci moom. loolu nag lépp lu ma ci man ci ñaan ak taxawu ko dinaa ko def kon nag ñoo sa cant si diggante moom ndax li ko waral itam nag ginnaaw bu cofee gu doxee seen diggante moom eh, njabootu Sëriñ Tuubaa ak taalibe yi nee waxtu wu ne ñu ngi wax ay yitte yu ci njaboot bi nee na bu sonoon nag ni ñuy doxalee sa diggante moom mooy dalay may may jàmm du la du la wax du la wax jënn soxla ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu ñu yëkkati teg na ko rek ci yitte njaboot gi nag. maanaam loolu nag da koo sant nañ ndax moo ko fi bàyyi ba soñoon njabootam gën a ci seen ginnaaw ñëpp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci ne bëgg tamit lu mu ci mën dana ko def. maanaam kon nag cant gi la ci jiitu mooy li mu lay sant ci njabootam lu ci ne nga def ca ba def ci lu mu dut kon loola nee na faaw cant gi mu dóor ko ba ñoom ñu ngi ko seqal ñu xam ko kon nag nee na ñu lay seere ne la mu la waxoon rek. Serigne Touba mi nga xam ne moom ngay jëfal na nga xam ne jëflante woo kenn ku dul moom li nga jëflanteel nag ne la na bu la fayee saxul dana sedd te lu wóor si itam xam nga ko ci kon yaa dana sam xel dal te sa yor rafet ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yi nga xam ne def nga ko am na ci ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne fàtte ko lu mel ne trip trente bi nga xam ne mat na onze milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne tey nañu ko waaye bu ñu toogoon di ko lim dana bari xëy na bu màggal ñu jeexee ba ñuy leeral danañ ko gën a leeral waaye sëñ bi lépp leer na ko sant na ci gërëm na ci kon ñooñu ñu ngi lay ñaan ci ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom doole la kàttan doole la gër leeral sam xel ba yéen nga xam ne am nga ko ci réew mi ak nga bëgg ànd